mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi dellu di leen ziare ñëpp di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen di rafetlu ànd bi saa su ne ak RFM pencoo gi tey ak rajo Futur Média di waxtaanee euh, kaso yi waaye dogal bu bees bi nga xamante ne nguur gi démb daal dina ko tàmbali euh, ngir jëm ci ñenn ci ñi ñu war a dugal ci kaso bi ñu daal di ko remplacer leneen maanaam ci wàllu may gët gi euh, ñu lay wéy di la may gët jaare ci lam boo xamante ni bracelet électronique la tudd dañu la koy takkal fileeg sab atte loole bokk na ci li waral mbébétu nguur gu Sénégal Sénégal euh, fexé dal di féexal as lëf euh, bërëb yi nga xamanteni euh, moy kasso kaso yi dogal bobu mo waral waxtan wi di sabab bi daanu waxtani ci condition de détention yi ak yenen Seydi Gassama di directeur exécutif bu Amnesty Sénégal mu ngi ak ñun ci téléphone bi sëñ Gassama ñu ngi lay ziar bu baax. ma ngi nuyu El Hadj di nuyu auditeur yëpp. jërëjëf ci sa ànd ak ñun d' abord sa appréciation sa gis-gis ci doxalin wu bees wi nuy waxtaanee tey muy bracelet électronique bi. waaw ñu koy rafetlu ñu koy rafetlu bu baax parce que ministre bi mu ko bi mu lancé idée je crois que 2017 la est mhm. ci premier passage le ministère de la justice qui la lancé woon processus bi yàlla def na euh, évidemment processus bi dox ba tey mu dellusiwaat Il ministère bi yeggali ko ñun dañ ko rafetlu parce que lépp loo xam ne mun na euh, sur peuplement euh, ci kaso yi. Mhm. loolu ñu dañ koy rafetlu. Ah. parce que surpeuplement bi dafa baaxul. et bokk na bokk na ci de defuñu di gën a jàmbaat. Eh, maanaam kaso yi dafa fees surtout yeneen kaso yi di kaso yëpp nag. Mhm. kaso yu bëri nag dañuy fees surtout lu mel ni rëbës. oui kaso la boobu dafa fees. te matuwaay boobu euh, bracelet électronique dina tax ba ak ñeneen matuwaay yi nga xam ne état bi mu ngi koy appliqué déjà. dina mhm. tax ba xëy na. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom lañ yóbbu ci biir kaso. Hmm. ñu bëri si ñoom mën a nekk seen biir kër. continuer nag di purger seen peine. wala boog di xaar ñu àtte leen. di xaar àtte bi ñu ñu leeral it du ñëpp ñoo ko nar a takk de dafa am ñun ko beral ndax xam nga du ñëpp la ñuy euh, may lu ni mel ah. waaw waaw du ñëpp. mënu mënu hmm. nekk ñëpp. Euh, non je voulais dire ceux qui ont droit à ce bracelet là mooy ñi nga xam ni xëy na dinañ ci xool xeetu xeetu jéye bi nga def ba dugg ci kaso bi. et cetera bu baax a baax. bu hmm. baax a baax parce que. ko xam dafa reuy nit. koku do ko job bracelet mu delluwaat. Mhm. bërëb bi nga xam ne fa la fa fa la dëkk wala fa la rëy nit. wala bok euh, agresseur bo xam agresseur bu bu garaaw hmm koku euh, koku tamit euh même soko ko joxee bracelet bi di ko surveiller. pour mu baña dem di defat ñeneen ñeneen ñeneen ñeneen crime. Mhm. wa ñi nga xam ne jot lor ci bir quartier bi. ñoom mhm. bu ne def fekk ko fu mu nek ray ko. waaw wala mu am beneen problème. kon motax euh

yooyu ay yoo xam ne bëreetul. Mhm. war nañu mën a def bracelet nga dem sa kër. waay waay loolu ñi nga xam ne ñoom nga lor mun nañu seen xool mun na sedd. Mhm. dañu yàgg na ci biir kaso. Mhm. dese na ko ñaaraat at wala ñetti at war nañu mën a bàyyi. mu dem këram yore bracelet bi. très bien loolu baax na ci décongestionner maanaam féexal kaso yi waaye leneen war nañu fent yenn yoon yeneen formule euh, pour moytu rek lu ne ñu njaay rek. <laughs> juge ñu baal ma nga jiital sa biir rek tok daal di jàllale waay ci kaso bi muy borom kër di leneen nga sànni ko fa fàtte yow euh, bu ñu waxee ñu naan woy amuñu juge yu doy ak dossiers yi ñoo tegaloo suñu bureau yeeg bon bàyyi nit ñi rek euh, vraiment ñu ñu nar a maxe ci kaso yi loolu tam c'est c'est c'est inadmissible. waaw xam nga problème ba nga xam ne mooy mooy problème bu gën a rëy ci ci ci Sénégal mooy àttekat yi dañoo doyul. Mm-hmm. magistrat yi doyuñu. Mm-hmm. kon il faut que ñu recruter magistrat yi ñu doy. cabinet d'instruction yi nga xam ne ñoom ñooy instruire parce que manam li li mel crime mom nga def. Mhm. il faut nga dem instruction. oui euh, les instructions bobu général mom moy yàgg parce que da nga cabinet bo xamné ne juge bi eh, mu ngi yore wala ñaar témir dossier. Euh, xam nga loolu dafa metti ci benn nit. Mhm. sans compter affectation yu bëri yi nga xam ne dañ koy def. Mhm. da ngay commencé benn instruction ñu jëlee la fi nga nekkoon yóbbu la feneen keneen mhm. ñëw mu recommencé waat processus bi. je crois que dañu war a yokk cabinet d' instruction yi. fexe ba képp ki nga xam ne téye nañ la rek. Euh, su dee da nga war a dem instruction ñu mën a euh, saytu say mbir mu gën a gaawee. ñu daal di daal di la évidemment. Euh, atte yokk tamit avocat yi. loolu duñ ko wax avocat ak juge yi. parce que aussi askan wi day yokku. <laughs> loolu duñ ko wax avocat yi tamit problème bu rëy la. Hmm. soo demee ci biir kaso e ñu bëri day leen naan man sama avocat benn yoon la benn yoon rek laa ko gis. Hmm. ëpp na ñaari at gisuma ko. Euh, lu nekk def naa ko pour gis ko mënuma ko hmm. gis. kon nañu yokk avocat yi. yokk avocat yi tey am na région yoo xam ne. am na mais avocat yi est dinañu dinañu privilégier ñëpp wala ñu bon yamale gaa munta am xëy na waaye aussi bu fekkee borom barke yi la ñuy gën a topp client yu nga xam ni moom sama maas gi aussi ah. waaw waaye xam soo jëlee ay yi nga xam ne comme ay Sédhiou ay Kédougou xam nga am na ay tribunal régional mm. régional. Mm-hmm. mais am fa amul benn avocat boo xam ne tey mu ngi Sédhiou. Mm. Ah, Kédougou. Euh, peut-être que léegi. am na cest à bëgg ñoo xamante ne yoon yoon a koy wutal gars yi dañ leen koy état bi yoon moo koy wutal nit ñi de facto quoi mu bañ a doon rek ay. yoon dafa képp ku ñu téye rek. Mhm. Eh, képp ku ñu arrêté rek. am nga droit woo sa avocat mu ñëw boo amul avocat boo ko amul tey soo nekkee Kédougou wala Sédhiou wala feneen. Mhm. région bi rek. su ñu la mhm. jàppee amul fenn foo xam ne avocat jege la bi nga mun nga koo. soo ko amul Seydi Gassama soo amul avocat je parle des réalités sénégalaises nit ñi amuñu avocat yu ci bari waaw su dee léegi amu avocat su dee par exemple je sais pas da nga commettre infraction boo xam ne euh, infraction bu bu criminelle la. Mhm. su dee da nga da nga war a dem euh, instruction. Mhm. boobaa wala bokk àtte sax. Euh, état war a mën a commettre benn avocat d'office pour mu assister la. Mhm. mais su dee infraction yu ndaw yi la euh, je pense pas que état dina <laughs> mhm. prévoir na disposition dafa prévoir maanaam l'avocat. ok état tamit mu mhm. ngi fi nek ku nekk mu jël l'avocat. avocat dëgg la cest à da ngay xam sa bop bo sa loxo jotul sa ginnaaw nga moy moytu yenn chaay chaay yu ndaw yoy. absolument mais déjà <laughs> na avocat yi am ci région yi yaa ngi am amul avocat mhm. région bu am tribunal d'instance oui de grande instance le mel ni le lu mel n'est-ce pas war nañu mun am ay avocats yu fa nekk. lu mel ni mm-hmm. Matam yi nga xam foofu la ñu nekk dëkk fa toog fa di fay liggéey. waaye ñëpp nekk Dakar. Mm-hmm. di taal seen oto wala dugg bi di dugg avion di dem plaider Ziguinchor di ñëw wala mm-hmm. di plaider Kédougou di ñëw. loolu yéenewul maanaam kon avocats yi tam li ñu ubbi seen métier bi bàyyi xale yi dugg a liggéey. parce que tamit loolu foog ñu wax ko métier bi dañ ko tëj. Mhm. te il faut ñu ubbi ko pour que xale yi mën a dugg ci biir métier bi avocat yi partout au Sénégal ku leen soxla nga leen am. ku leen mhm. am nga xaalis soxla avocat nga mun ko am. dañu ko tëj mooy lan euh, c'est vrai que aussi euh, ma ne su ko ubbi mën d'ailleurs loolu mooy yàq koor yu bari Sénégal. wax ñu xam nga rek. <laughs> dañuy tenir rek euh, yenn yi. amal genn gi mais ku avocat. xam nga Nations Unies dafa am ratio maanaam ratio yoo xam lay teg di daan ah. population sangam soo am. sangamu avocat. wala magistrat wala médecin wala leneen ak leneen ratio yooyu la xool. su dee motul ñu jëm ko mottali. Mhm. Euh, par rapport ak population fexe nag ba état encouragé avocat yi ndaw yi. ñu mun dem toog ci région yi. Mhm. parce que ñëpp bëgg nañu toog Dakar. parce que na affaire yi fii la ëppee. Mhm. mais ñu encouragé leen jël ay mesures pour encouragé leen. très bien pour ñu dem toog Mbour toog ah, Kaolack. très bien voilà. merci ma jeexale ak yow Seydi Gassama fii léegi loolu lépp di mate parce que justice dëgg boo ko déggee dafa laaj ay moyens quand même parce que euh, léeg-léeg dina am ñoo xam ne dañu leen di léser même si c'est pas volontaire euh, ñàkk loxo yi egg fenn fay tax euh, manque de moyens yi léegi moo tax ma bëgg a taxaw yow ci condition de détention yi kaso yi même bu nu ko féexalee même bu nu takkalee ñenn ñi ay lam ak yooyu ña ca des ñoom ñoom it am ak ak yelleef euh, nam état bi mu ngi def ay djégo di lu ci melni ni pécule bi yok nañu ko et cetera mais war nañu gëna a euh, gënal. condition yo dañ ko yokk waaye ba léegi doyagul parce que. dañu c'est pourquoi je dis il faut améliorer 1000 francs. 1000 mhm. francs dafa touti il faut améliorer dafa touti ñi mhm. xam lañu né am na effort. ñu mhm. ne lekk yi léegi tane bu baax. waaye dess na. dess na ah, surtout tamit réinsertion bi. Mm. il faut que déjà soo nekk ci biir kasu balaa nga génnee. Mm-hmm. ñu commencé day tàggat. Euh, su dee amoo métier nga mun a am métier. Euh, de sort ko bés boo génnee. n'est-ce pas di nga mun a insérer wu. Mm-hmm. Euh, waaw loolu lu am solo la. maa mm. ngi ci boole xam nga mairie Dakar. am na genre programme boobu.

bu mbir Dakar lancé na ko. ah très bien waaw waaye bi ñu koy lancé nag dafa tombé woon élection législative. <laughs> Euh, talatuñ ko <laughs> moo tax kenn waxu ci ñun tamit ñun tamit jéemuñu ko siwlo trop. parce que dañu naan yi da yaa ngi jàppale. mais am na solo c'est euh, vraiment une initiative. Euh, intéressante am solo la. Mhm, hmm? mhm. waaw nit ñi ñu mën a duggaat ci société bi. waaw parce que il faut que ñu arrêter de penser que kaso aussi mooy rek nañ ko def xër mettital ko alors que. waaw privation de liberté la.

appel yooyu nag dañuy toog benn say lu yàgg balaa appel bi ñu koy ñu koy attee mhm. diggante bi du ñu mun a def euh, euh, ñaan du ñu mun a bokk ci grâce yi du ñu mun a am aménagement de peine parce que ñoom dañuy def appel mhm. euh, kon appel yooyu tamit il faut que ñu ci bay xel bu baax a baax a baax ci nga xam dañu la tëj tëj la daanu juróomi at mhm. nga toog trois ans sa appel kenn attew ko mais dañ lay lor parce que soo defee trois ans war nga mun a xëy na bénéficier grâce présidentielle ah, waaye soo defee appel rek loolu dafay daal di nekk loo xam ne lu métti la. Mhm. am na solo ñu nañu bu baax campéno yi Koutal ak euh, ak bu Liberté 6. Mhm. ñi nga xam ne ñu ngi foofu te ñu def appel. Mhm. Eh, dañuy accorder tamit une importance à ces appels là. mun di ko attee. lu mu gën a gaawee pour que xëy na su dee euh, dañ leen dañ leen dañ leen. manam euh, relaxé wala boog ñu ñu acquitté leen ñu gënné wala boog su dee confirmer peine yi. Hmm. ñu mëna bénéficier wu ci mesure d' yi nga xamné ne. wala grâce yi nga xam état daf koy accorder amna solo maintenant il faut régulièrement di euh, euh, en parler xam nga fi aussi bala ñoo wax say mbir rek nga nekk ku siiw wala nga nekk politicien bu ñu ne xër ci kasso bi wala nangam. donc il faut que le débat soit maintenu. Hein. soit maintenu. tout le temps ñun en tout cas at mu nekk dinañu visiter vraiment maa ngi rafetlu DAP tamit. mu nekk au moins dañuy dem ci juróomi kaso. Mhm. te kaso bu ñu visité rek dañuy def rapport yónni ko ministre de la justice. ne ko mhm. ah lii lañ gis ci kaso sangam. Mhm. ñu ngi lay ñaan nga jëlee matuwaay pour mën a saafara loolu. généralement. dinañ jël ay matuwaay pour saafara ko. Tamia jërëjëf Gassama jërëjëf. waaw ñu koy gërëm bu baax Seydi Gassama bu si dalal euh, Alaaji Daouda Mine moo jiite euh, IGFM euh, sëñ Daouda ñu ngi lay ziar. Euh, maa ngi lay fay euh, El Hadj di rafetlu ànd bi ak ñun également euh, njëkkee rek wàllu li waral li sabab waxtaan wi mooy bracelet électronique bi lam boobee ñu nasa takkal ñenn ñi nga xamante ni tuuma da leen topp seen ab yooyu ngir féexal kaso yi ñu fàttali ni ministre bi ñu dénk wàllu yoon jëmmal na doxale gi démb ci xew ban njàngat nga ci am yow. waaw dama koy rafetlu comme ni ko ñëpp di waxee parce que bu fekkee appliqué nañ ko comme nu mu waree. Hmm. dina nekk lu nga xamante ne dina féexal kaso yi un tout petit peu. parce que comme am nañ euh, dix mille yu nga xamante ne pare nañ. suñu sélectionné ñi nga xamante ne ñoo ci mën a bénéficié wu ñu defal leen ay bracelet. il ma semble que mille wala man maa liirul bu baax mille laa gis ak mille yeneen yu wala. ak ak la ñu wax. waaw pour le ah, moment mille disponible dafa naa loolu laa liir waaw. waaw waaw waaw <laughs> su dee bët yaa ngi baax ba léegi daal waaw junni la ñuy defaru kon kon xaj na man maa jóg. <laughs> mu ngoog waaw donc mhm. donc donc mille su fekkee ne sélectionné nañu ay nit ba pare defal leen ko génne leen ci kaso yi. Mhm. mille yooyu boo leen génnee ci kaso yi kaso yi dinañ xaw a tuuti. oui parce que comme ni ñu ko waxee tey euh, Sénégal 37 prisons ñoom ñoo fi nekk. Mhm. mais dafa am ay prison yu nga xamante ne pratiquement ñoom ñoo gën a gën a gën gën a gën a xat. surtout boo demee ci prison yu nga xam ne ñoo nekk yenn capital régionale yi. oui que mu nekk Dakar que mu nekk Thiès que mu nekk Ziguinchor. Mhm. dafa nekk ay kaso yu nga xamante ne encombrement bi dafa dafa bëri trop. tey tey jii booy wax kaso Sénégal eh, ñaari ñaari ñaari problème la ñuy la jàmbat chaque fois mooy euh, vétusté mooy mm. kaso yi dañoo màgget. Mm-hmm. beneen bi moom mooy surpopulation carcérale. Mm-hmm. donc lii nga xamante ne buñ ko defee. cest à daaw Daouda euh, baal ma euh, baal ma dogin wi daf du parce que da ci am bërëb yoo xam ne aussi au départ c'était pas pour mu nekk kaso ñu jël fa dugal fay nit loolu tamit xam nga jaaduwul. mais moom mooy dëgg boo jëlee boo jëlee kaso yi Sénégal. 37 mhm. ka 37 kaso yi nga xamante ne mooy kaso yi nekk ci Sénégal li nga xamante ne moom lañ tabaxoon pour que mu nekk ay kaso mënoo cee compter juróom. Mhm. li ci des ay ay écurie ay fas lañu woon ñu wëlbatu ko daal di koy changé mu nekk euh, kaso. Mhm. Euh, yeneen yu nga xamante ne ay kër lañu woon ñu transformé ko mu nekk mu nekk ay kaso. tey bu dul peut-être prison Rebeuss bii nga xamante ne depuis 1900 avant indépendance lañ ko tabaxoon. amul bëriwul kaso yu nga xamante ne dañ leen a leen a tabax mu nekk ay kaso mm-hmm. bu ci bees bi ci am mooy bi nga xamante moom moo nekk Sébikotane léegi mm-hmm. te boobu biñ ko ubbee matul euh, matagul ñaari at mm-hmm. donc lo donc vétusté boobu moom mooy problème fondamental bi beneen problème fondamental moom mooy sur surpopulation carcérale surpopulation carcérale boobu nag tey lii ñu def nii muy bracelet électronique mécanisme la pour que ñu wàññi ko tuuti mais à mon avis Euh, loolu rek doyul. Hmm. déjà application il faut que ñu def ko mu nekk une application rigoureuse. xool ñi nga xamante ne ñoo ci war a bénéficié wu mu bañ a am ay sàmm. kumba am ndey kumba amul ndey. Hmm. xool ñu nga xamante ne leer na la ñu ils doivent en bénéficier ñu bénéficié wu ci. Hmm. ñi nga xamante ne mënuñu ci bénéficié wu ñu bañ cee bénéficié wu. mais également ñu toftal ko ak yeneen yu nga xamante ne mu ngi ci suñu côté te appliqué wuñ ko. tey jii bracelet électronique bi muy ñëw daf fekk juróom-benn yu nga xamante ne. ay mode d' aménagement de peine la yu nga xamante ne ñu ngi fi woon. ñu mhm. nga xamante ne lu ci. yu mel ni. par exemple boo jëlee boo jëlee avant parce que bracelet électronique. Mhm. moom moo nekk septième mode d' aménagement des peines. ok bi ci njëkk moom mooy sursis. Mhm. di nga dégg tey ñu naan la nit jox nañ ko sursis. boobu mode aménagement ñu ngi koy appliqué. di nga dégg beneen bu nga xamante ne mooy probation. nit ki def na benn njëm njombe ñu de ñu mettre ko à l'épreuve hmm. xool ndax moom dina dina tuub li nga xamante ne defoon na ko ba pare hmm. loolu duñ koy appliquer fii hmm. am nañ lu ñuy tudde par travail au bénéfice de la société tey jii man def naa njombe au lieu ñu yóbbu ma kaso ñu yóbbu ma Dakar dem dikk may raxas may raxas bis yi par exemple voilà donc loolu aménagement bu nga xamante ne euh, euh, prévoir nañ ko suñuy texte am na semi liberté mën nañ ma mën nañ ne par exemple man condamné nañ ma euh, juróomi at. Mhm. ñaanu ma ko yàlla. Mhm. mais ci juróomi at yi ñu ne. waa léegi damay dugg ci kaso bi juróom benn weer mais yeneen juróom benn weer damay génn dem liggéey. Mhm. donc dañ may dog dogale sama condamnation boobu. nga xamante ne damay damay dugg di génn dugg di génn ba baa ma koy matale. xam nga mooy boobu mooy fractionnement de peine astafurlah. semi liberté bi moom mooy bu nga xamante ne bëccëg bi dañ lay bàyyi nga dem liggéeyi. mais après guddi gi nga ñëw yow nga nga fanaani ci kaso bi. Mhm. voilà am na benn bu nga xamante mooy dispense de peine mën nañ la reconnaître ne lii nga def ni yow yaa ko def. mais juge bi jàpp ne wax dëgg yàlla même boo ko defee tamit moom mën na la dispenser peine nga delluwaat ci sa ci sa mhm. njaboot. yooyu mhm. yooyu yëpp ay mode d'aménagement yu nga xamante ne. am na bracelet électronique bi moom moo ñëw nekk septième mode d'aménagement. donc ma je ma dis nag bu ñu combiner lépp. ba pare boole ci nag. éviter li ñuy woowee mandat de dépôt systématique. bi nga mhm. xamante ne problème fondamental. oui oui. ñun dañuy ni texte la liberté moom le principe. Mhm. le mandat de dépôt moom l'exception. exception. Mhm. Sénégal le contraire moo fi am. jàllale gi te yu doy. te possibilité bi nga procureur de la république li muy jàllale kaso moom moo ëpp li nga xamante mooy juge d'instruction yi ci la ñuy jàllale kaso mm-hmm. te loolu problème la tey ji boo jëlee tribunal des flagrants délits boo demee tribunal Dakar bi altine ba ajjuma mm-hmm. day am tribunal des flagrants délits mm-hmm. ñee ñu fay jugé ñëpp procureur moo leen jàllale lu kenn ku ci ku ci juge d'instruction jàllale juge d'instruction ñi muy jàllale mooy ñi nga xamante ne tribunal correctionnel lañ leen di jugé wala chambre criminelle te ñooñu boo koy xool par rapport ak ñi nga xamante ne dañ leen di jugé yëpp représenté wuñ sax trente pour cent mm-hmm. donc tey jii France rek la nañ ko dem pour benn juge des libertés bi nga xamante ne mooy dox déggante procureur bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi def ay ñaawteef Mm-hmm. Sénégal Sénégal defaguñu loolu et je pense que ci réforme yi nga xamanté war nañ ko engager loolu war na ci bok war nañ bu ma comprendre bu baax euh levier yi mën a dafa bari quoi du rek euh, lam bi du rek euh, xeyna ni nga waxe sursi et cetera mais yoy yëpp ay pexé la yo xamni buñu bu ñu ko bu ñu ko rabasaatee coordonné euh, dinañ am liñ bëgg en plus maintenant de jéem gorgorlu aussi tabax yeneen i kaso ndax adina mom moko lolo and ànd mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu man pour man c'est un c'est un c'est un ensemble mm-hmm. voilà la justice bi na fonctionner su amee sooxe rek répercussion bi mën na ba ci bi. Mm-hmm. parce que parce que damay am habitude di wax ni kaso moom mooy euh, hôtel bu nga gérant bi droit refuser kuñ ko un mm-hmm. xam nga yow ci hôtel tey bu feesee ñu ne la ah de hôtel bi na. Mm-hmm. directeur bi possibilité buñ ko indi kayit na ko mandat de dépôt même buy xaj xajal ñu leen di ñëw di leen paquetage comme ni ñuy mm. waxee yooyu il est obligé de le faire parce que mënu rejeter kenn mais paquetage ñoo xam ne yow da nga ne d' da ngay góorgóorlu pour réinsertion sociale am xam nga nit ki pour nga defaraat ko ci kaso bi mu dellu ci penc mi d' abord wérgu yaram ca jiitu mais yenn anam yi bu ca nit nekkee da dadul desee tig wéram sax bay dese kàttan goo ko réinséré waaw waaw waaw boobu tamit benn problème bu ñu am Sénégal ñun sur les sur les 37 prisons yi ñu am dañu am dañu am quatre catégories de prison. Mm-hmm. ñeenti catégories dañu am lu ñuy woowee maison d'arrêt. Mm-hmm. comme comme Rebeuss maison d'arrêt la. Uh-huh. ñu am lu ñuy woowee maison d'arrêt et de correction pratiquement région yépp moom moom moo fa am. da nga fay fekk ñu nga xamante ne kenn jugé guñ leen ak ñu nga xamante ne dañ jugé condamné leen ba pare loolu maison d'arrêt et de correction. Mm-hmm mu am fu nga xamante nañ leen tudde maison de correction benn la fi woon muy Sébikotane la mhm. prison à vocation agricole foofu ñu ñu condamné rek la mhm. ñu nga xamante ne peine bi ngandul noonu ay ay un an la ay deux ans mhm. mu am nag lu ñuy woowee ay camp pénal comme Sidiki Seydi Gassama li mu ko waxee léegi mooy par exemple camp pénal bu Liberté 6 camp pénal bu Koutal ak benn camp pénal bu nga xamante moo nekkoon Kédougou foofu noonu mais mooy les longues détention préventive ñi nga xamante ne condamné nañ leen lu ay ay deux ans ba perpétuité la plupart ñun suñu administration pénitentiaire politique de réinsertion sociale bi nga xamantene dañ ko def ci mm. campement yooyu lañ ko def mm-hmm. te ñi nga xamantene dañ leen condamné à de très longues euh, euh, euh, une peine très longue mm-hmm. mais ñi nga xamantene ne ñoom ñoo ëpp tey ci kaso bi mooy ñi nga xamantene ne condamné leen à perpétuité mm-hmm. parce que tey boo jëlee par exemple kaso bi bu ñu nekkee vingt mille personnes ñi nga xamantene dañ leen condamné à perpétuité matuñu matuñu matuñu disons cinq mille personnes mhm. matuñu trois personnes mhm. mais ñi nga nañ def lu nga xamantene naka sudul nonu dal peut-être ben mois ben sept mois ben huit mois mhm. am doon aménager permettre par exemple ñuy récupérer sinon sinon après buñu gennaté des euh, ay nous comme on dit donc nous, dugg mën nañ duggé comme primaire kuy mais bu duggee biir kaso xamul woon kaso dugg na ci biir gis na kaso bi ba pare nekk na ko xam xaw na dërkis tuuti. Mhm. bu génnee bu ñu ko encadré wul rek soo moytuwul dina defaat beneen jombe. dëgg boo xoolee les bandes d' agresseurs ñëpp boo koy xool ni kenn ñi leen composé. Mhm. c' est des gens yu nga xamante ne c' est des récidivistes. Mhm. mos nañ kaso génn nañ amatuñ lu ñu def xam nga ñu ñëw daal di duggaat ci ay bandes d' day eh way lol mom doyna war wala ko ku tam lu bon it aussi loolu moom kooku nekkatu dimbali ndax ki ngay réinsérer moy ki réccu euh, ki ki ki bëgg baax ki bëgg soppi euh, ñu ñu wax nak euh, aspect bi xamna fa la jéxalé alaaji c'est un peu culturel quand même parce que Sénégal tam dañ la ci dul baax même buñ la takalé lamb bi ñanga lay xol ak nit hein voilà donc pour nga nekkaat ci pench mi ah nit ñi vraiment ñun dal l'enfer c'est les autres <laughs> non non la la l'enfer c'est les autres parce que mm. même sànq maa ngi lay wax application bi mm-hmm. am na benn sensibilisation bu nga xamante ne war nañ ko cee def. Mm-hmm. parce que texte yi li ñu prévoir dañ ne même ki koy takkal il faut que mu nangu ñu takkal ko ko. Mm-hmm. kenn mënu ko ko imposer en fait. su bëggee ñu takkal ko ko su su su su buggul. Mm-hmm. day day day day dem kaso. mais culturellement comme ni nga waxee. man xam naa ñu nga xamante ne tey jii. ñu takkal leen lam fu mu rom fu ñu romb ñu joxañ leen. dem dem kaso ba tëdd ko ba mu jeex mu mën koy gënal. mais nak lam lam bi gën condition yi mu ci non ah. paquetage c'est parce que aussi droit mais <laughs> waaw mhm. réew moo xam ne politique guddi politique bëccëg dañ leen di sax fàtte euh, tey Seydi gasama bu waxuloon waa Koutal yooyee ñu bari Sénégal xamul ne ñu ngi ko fay dundi ati at donc kan moo leen di wàllu hein? les sujets à traiter de façon quotidienne nañ koy gën a yaatal tamit dëgg tamit mhm. dëgg mhm. parce que kaso yi quand même c'est des gens yi nga xamante ne bon peut-être ils ont fauté il y a beaucoup de gens qui sont là-bas ñu nga xamante ne fauté wuñu bon peut-être erreur moom moo tax ñu dugg fa mais toujours été que ka nekk kaso ak ka nekk ci biti ñoom ñëpp ay sénégalais lañ te nit ki même bu fekkee def na peut-être benn njombeem ñu ñu ñu ñu japp ko dal di koy tëj dafay dem pour fay borom. Hmm. il n'en demeure pas moins que il est un sénégalais. bu nga xamante dafa am ay droit ak ay yelef yu nga xamante il faut ñu hmm. sàmmal ko ko. dëgg la donc ce qui fait il faut que comme ni nga waxee le regard du du peuple sénégalais. il faut que hmm. mu changer un tout petit peu. xam ne nit mën na juum. mais ñun sax dañuy juum te bu ñu juumee dañuy jàkkaarloog yàlla. mais dëgg la ñu koy ñu gën a ñu mandu daal. mais en tout cas euh, lam bi benn jéego la ñu koy saluer di ñaan yeneen i jéego et cetera lépp rek ngir ay ngëneel ci bépp

koy police am tort ci kanamu justice état bi doon complice sunuy soxla soxlawul ñu leen koy diis yéen ko gën a gis au secours dara jàngi tiis si biro ngi wàññi bis li am ci géréw bi dafa tiis du ndimbal du sacrifice ci beneen onde lañ ñu bis chez nous ça va mal te ku falu ñoo la fal dinaa bind bataaxal bu leen koy xamal kàddu yu mel ni bal lay àndal ku ne lay dal coonoy kese moo ñu dal xanaa ñun bokkuñu Sénégal ñi amul baat lay waxal seeni rongoñ moo xabtal bu ma écoute sur

ah am benn problème maa ngi lay déglu yow daal ak yeneen gars yi waaw ah, ci bisimilah. voilà gàttal rek comme li nga ko hmm. waxee daal vraiment alaji tey état bi defati na jaloor bu rëy quoi sincèrement. bi hmm, tey déglu hmm. naa Daouda eh, kii Seydi Gassama ak euh, le journaliste Daouda ku may naw trop nag dama ko. Ah, ñaar toujours ku baax la. vraiment man de leeral na ma lu bëri ay maison d'arrêt correctionnelle ak maison d'arrêt lépp man. loolu moo ko noonu. très bien. loolu te rajo yi daal li leel buy wax daal am ñu bëri ñu ngi jàng ci yow. radio jangal jàngale la jàngale. voilà vraiment puis loy wax rek. Mhm. xamal carrément li nga wax amna ko xamné xam ne bu su koo xam mu ngi koy jema xam. deug la. vraiment wax RFM dal machallah li mo état bi ñu ngi koy ñaanal vraiment bu gën a dem kanam amna lo xamné xam ne jooytu nañ le problème des avocats. au mhm. niveau de Kolda Alaji Assane. Mhm. am na avocat de mais dafa bariwul. dafa bëteewulewul. wul Alaji Assane toujours la plupart ci euh, bo amé fi procès. il faut un avocat jóge fële euh, Dakar. daal di ñëw kii laa la nga loge ko fii si ay hôtel wala loge ko fii si hmm. ay campement touristique vraiment hmm. loolu dafa kii ñu koy nañ yaatal vraiment hmm. avocat yi nañ yaatal buntu bi quoi bu xale yi bëri dugg si quoi sincèrement très bien maa ngi lay gërëm di ñaan vraiment foofu sa Moussa yàlla musal ko seytaan jërëjëf amiin amiin yaa rabbi jërëjëf euh, Alaaji de Mine moo nekkoon suñu imam ca Màkka <laughs> Ablaye suñu néeg ba barka ba xam nga mënul ne imam Bamba Cissé maître metre woon nekk imam maa fa tane woon àll wa mais daaw de mbiin ndekete moom moom daanaka daa wàcc waa <laughs> asalaamualeykum. maaleykum salaam El Hadj Assane. Boubacar. avocat wu askan wi. <laughs> waaw mais nag Boubacar man plaidoirie yi ngeen bëgg a def sama antenne bi laa dul nangu nag. dégg ngeen wax naa ko Omar Sow dinaa ko wax euh, ñoom xaas ak xaas sax moom moo ko mu dégg waa il faut ñuy ay ayloo nag dégg ngeen. waaw ñun nag. ah yàllaa ñu bindee noonu. ah déedéet da ngeen di xajal yeneen gars yi nag. waaw d' léegi El <laughs> Hadj Assane. yéen ay avocat politicien yi. El <laughs> Hadj Assane. waaw. da nga da nga da nga andi tey débat bu am solo. Mm-hmm. sant nañu te gërëm nañu ñu nga xamante ne ñoo fi ñoo ñoom nga invité woon wax nañu lu ubbi bopp askan bi surtout ma waajur yi surtout ma ñu nga xamante ne tey ji ñooy askan bi. El Hadj Assane. loolu nga xamante ne si ndigalu soo excellence le président de la république muy bracelet yi. Uh-huh. teg ko si loxo ministre bu nga xamante ne moo yor ba tey ji def si ay jéego ba tey ngeen koy waxtaanee askan bi seen xel yi ubbeeku na te firi nañ ci loolu yàlla na yàlla def jàmm si réew mi. amiin yaa rabbi. di dafa am solo. ba pare gis nga alaaji Assane détenu yi ak ñu nga xamante ne mooy garde pénitencier yi parce que garde pénitencier yi dañ leen a dénk. te hmm. ndénkaane dafa dafa am solo. te garde pénitentiaire yi dañaa nekk ay jàmbaar parce que dañ leen di dénk lu ne mais teewul que ñoom seen jàmbaarte ak seen xerañte si seen njàng si seen yitte ñoo ngi jàppale ñu nga xamante ne ñoo ngi si biir kaso gi si leen leen nu leen formé ba tax na ñoom sax seen biir ñu si bëri dëti ni génn na tuddee leen doom dëti ni génn na seen famille doon benn te loolu nag mooy Sénégal yal na yàlla def jàmm si réew mi maa ngi nuyu monsieur le ministre de l'artisanat docteur Pape Amadou Ndiaye jërëjëf ñuy jéggalu waa bombay ci euh, antenne boobu ñuy wax dafa dafay suus <laughs> ablaye loolu seen liggéey la yow ak ñoom pape diak yee jàll antenne buy suus moom wax dañ maa wax loolu ci micro bi alors les techniciens non ka ngeen baral jéego yi nu mu gën a gaawee lijjanti waa bombay waa kolda euh, yombul xam nga nawet comme nawet bi jeex na lépp lépp na dellu insha allah na woon bu nawet jaaree lépp lay falaxe asalaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi lay ziar si. alaa ziar nañ bu baax bismillah Abdou Sarr Guèye Ndiou avocat kaw kaw yi. Bambey gi nga tudd moom mooy sama dëkk moom. ah Bambey kër Babacar Diouf. waaw waaw Babacar Diouf waaw dëkk. waaw li nga wax ci affaire APS yooyu moom am na solo. Mhm. mais li am solo daal mooy toujours ni ma koy waxee rek def te yàlla tax. Mhm. parce que tey itam fii tant que bayuñu dinaa la tëjlu wala dinaa la jàpplu moom. Mhm. il faut ñuy tëj ay nit yoo xam defuñu dara parce que loolu dama koy gis bu bëree bëri dinaa la tëjlu wala dinaa la jàpp Hmm. bu ko defee nag ñu jaay la doole tëj la dugal la ci kaso bi ci loo xam ne nii daanaka defoo dara. <laughs> waaw loolu doy na nañ kaa muy loolu war nañ kaa muy bu baax a baax. mais nga baal ma Touré am na fu ma bëggoon nga ñëw. Eh, benn débat mooy wàllu ci sàmm yi ak borom tool yi daal lool daal bëgg naa nga def ci débat tuuti tuuti. def ci débat kay dama xanaa da loolu la ma ci wax. man bañ ci war a wax laa ci wax toujours damay alerter. mais Sénégal dañuy bàyyi ba jéyee am après ñu commencé nag rencontre yeeg rëy xel alors mbir dang koy kar lu bëri loo xam ne bëgg naa ko cee yaatal quoi dinañ ci def dinañ ci defaat yeneen i waxtaan dinañ ci defaat yeneen waxtaan jërëjëf alors que c'est c'est pas compliqué waaw wutal sàmm si ay yoon euh, ñoom it ñu yam ca yoon ya euh, borom tool yi également ñu xool lan mooy euh, ñàkk seen i tool mais jàmm nañ ñooy parce que aussi ku bëggul ñu yàq sa alal doo yàq alalu jàmbur et puis l'état nekk ci kaw nag autorité jël ay dogal Sénégal masla bi moo bari waaw mënoo ne ci dëkk di def lu la neex ca dara du la ca fekk loolu amul ci benn réew

dina bëtt parloir sar couloir ubale ba chambre noire tey la vérité en face na de bi tëri tëri paas waa gëri gëri kaas firi clash avocat à la cour buur ak doomu buur jàppee ñu mburu ci fuur xombalay tax allo allo asalaamualeykum allo allo wa waaleykum assalam wa rahmatulah El Hadj Assane waaw Mamadou waaw jàmm te di la nuyu nuyu équipe technique bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm. waaw li ngeen waxtaanee muy affaire kaso yi. lu lu mat a waxtaanee la ndax kaso dafa nekk lu nga xam ne neexul te kenn ñu kenn kenn ku ne bu sañoon doo ci dugg waaye damay wax rek ne euh, loolu ay ay lu ñuy wax ne euh, ay idée la ay avancement la yoo xam ne parce que lam yooyu dafa nekk lu nga xamante ni bi tamit am na solo lépp loo xamante ni bi pour nga am xalaat indi ko ne ah lii kat su ma ko indee pour état bi wala loo xam ne luy jëriñ askan wi. dafay am solo ba tax na daal euh, loolu dafa dafa am solo. lool lool lool. Mm-hmm, mm-hmm. di la jaajëfal laaj asan bu baax a baax jërëjëf jërëjëf Médor. asalaamaaleykum allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw man Guèye Guèye Guèye. Sow. waaw Guèye ñu ngi lay ziar ñu ngi lay bëggee. yàlla na yàlla na ko ziar jërëjëf. yàlla yàlla yokk jàmm yokk sutur yokk xéwal yi. yàlla nañu ko yàlla boole. di la bëggee bu baax a baax a baax jël de waaw. kooku kay waru nañ ko defal pour ko defal ñëpp rek man kay xanaa xanaa lam yi mbar du kële ñote <laughs> déedéet lam yi am na sutura de waaw am na sutura loolu. am na sutura ok ku fi jox man de lambu kiliñote nag nga bàyyi ma fa ma newoon moom a gën a. <laughs> <laughs> non du kiliñote incha allah yal na yal na yàlla yokk jàmm yi. amiin amiin ndax prison yi fees na lool. waaw dëgg la dëgg la wax dëgg yàlla comme ne sama sama sama sama rak sama xarit malal waxe rek. dëgg la dëgg la waaw yal na yàlla ñëpp ñu nekk tegu ci yoon sar sumit sax yoon rek jubal rek amiin yaa rabbi waaw waaw yàlla bu fa kenn dugg sax. Mhm, waaw waaw jërëjëf maa ngi nuyu grand yi. jërëjëf jërëjëf mu ngi lay fay bu baax di jaar bu baax doyen sunu mag suñu xarit Mansour Dieng Ablaye xam nga Mansour Dieng bu icône <laughs> waaw moom it euh, macha allah di icône euh, ci métier mi ci Sénégal jaajëf Mansour. waaleykum salaam. Alaaji Hasan. waaw. waaw waaw mbiru kaso yi de. Mm-hmm. lu jar a waxtaane la. Mm-hmm. ndax kaso moom dafa war a yare. Mm-hmm. te mën na indi sax développement ci réew. lu bëri masalan mën na faa baax. waaye bu ñu fa sàgganee nag lu bari mën naa yàqu. dëgg la. waaw ba man sax bu ma ci amoon xalaat. waaw. kaso yëpp dañ ci dañ leen di jëlee ci ville bi. Mm-hmm. yóbbu leen masalan ca àll ba. ba nga xamante ne bi tey kaso mën nañ fa béy ceeb mën nañ fa béy dugub mën nañ fa béy banaana mën nañ faa sàmm xar mën nañ faa sàmm béy. Mm-hmm. mën nañ faa jàngale masalan ay métier ba ku fa génn sax nekk fa fukki at boo génnee. Mm-hmm. fekk dinga nga am diplôme boo xamante ne bi di nga mën a dugal sa bopp waaye gis nga tey tey tey. am na ku ma seeti woon. dëgg la nag yar la parce que yoon yoon la. dafa am rek ku mu loon moom mun mun munu masalan moom moom mun ta calculer. Mm-hmm. mu calculer ko par exemple war ko toll jox lu tollook huit cent mille. Mm-hmm. mu jox ko juróom-ñaar fukki junni wala juróom-ñetti junni mu ko juróom-ñetti fukki junni mu koy defaral comme comme lal ak yëpp daal. waaw. am lu mu ko dural léegi nag kooku daanu ci calcul bi kooku yóbbu ko gendarmerie ñu waxtaan mu nëbbu ko ay bokkam comme ñun. Mhm. ñu dem nag ba kooku yóbbu ko ba ñu ba mu fanaan ko ñu yóbbu ko ca procureur démb lañ koy door a te ñun fay nañ lépp. Mhm. ma ne ndeysaan miskin yi de sonn nañ waaye tam loolu baax na ma ne xëy na dina doon yaram ëllëg ak si biir. Mhm. loolu dootu ko dal te lii ngay def nii nag man bu doon sama sago président saa yu yeewoo. dina déglu ba bii émission soxnaam déglu ko ministre yi déglu ko gis nga li fiy jóge ci xam-xam. Mhm. ak ci ñu mën a xam réew mi. bari na lool jaratul ñuy fay benn conseil lenn li. alhamdulilah yal na yàlla sàmm Sénégal. <laughs> jërëjëf. yal na yàlla aar Sénégal. jërëjëf yaa oustaz. jàppale daara yak miskin yi. amiin yaa merci beaucoup Ablaye <laughs> président gouvernement bi def ko euh, bërëbu conseil moom dañuy sponsoriser émission bi rek mbaa nu bàyyi ko. <laughs> RFM du def gratuité euh, donte dañuy def service public bu yaatoo yaatu nag waaye mu ngoog ayca Pape Dia euh, c'est plutôt Bambey amul antenne la wax xam nga auditeurs yi nag ñoom ñoom dañoo bëgg RFM ba nga xamante ni <laughs> bu nu sañoon euh, ruq-ruqaani Sénégal yëpp da ngeen fay ne kon DG Birane jënd antenne yu doy pab ja teg la ci yab la ci oto fu ne nga samp fa rpm ndax askan wi yëpp jote ci donte nag. Euh, daanu dajul suuf la ñuy wax Ablaye ah waaw daanu c'est pas moi en tout cas lépp mënut a mate <laughs> ñu ngi ziar bu baax euh, Abdoul Aziz mi yëglu foofee ca Bombay di ziar ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci gox yi war a am RFM ci amuñu ko waaye di gërëm les rajo communautaires yuy relayer programme RFM également ndax def ceeg sotti léegi rek yëpp benn la euh, ñu ngi leen di jaajëfal Ablaye dernier auditeur wala waaw kay acca allo allo. oui salaamaaleykum. salaam. alaaji xaas mbay la <laughs> xaas xam nga yow yow ku baax nga man boo seetloo lépp lu may yóbbante sa gars yi ci yow laa koy jaar te man d'accord naa man kay ne woon naa fi damay arrêté émission bi parce que xam nga non non non faut pas que les gens soient des abonnés comme ça euh, waaw et puis sax euh, xam nga tubaab lu muy wax <laughs> il faut savoir s'absenter tubaab da di euh, bu chaque jour nga ne naam dramé bu yàggee baaxul nit ñi dañu il faut savoir mook toogaayu mbedd yam <laughs> ku génn yam ci yow baaxul allo xaas waaw. loolu la jëmmi sëñ Fall moo na woote. mais ah. dafa am sama xarit bu nekk. maslaat naa ko nu ne waaw aji bisimilah. non non wóor yàlla xoolal. Mhm. dañ lay dañ lay demandé bu mujj da am ceeb sax. dë dëgg la xam nga ma wax léegi. Mhm. ne ma dimbali ñu yàlla nga dugg jooyal ñu rajo parce que mbàkk rajo bi fan yi day suuf. ah waaw. fi ne waa Palmarin. mooy mooy Fimela. ah. ba léegi canal bi doxagul chaque jour ñu woo ma ñeenti yoon wala ñu envoyé message. dëgg la ndeysaan. alaaj ñun li ñuy def dafa métti ba bu sëb nga jaay junni wala. junni nee leen nee leen ñun suñu bopp sax ñoo ngi suus danoo sonn. non ñun ñoo gën a sonn mais que ne boo <laughs> duggul xool maire bi ma lay maire am tey damay woo ne ma gëj naa laa dégg RFM. dëgg la jour nit ñi dañ may interpellé gëj naa laa dégg ci alaaj bi sax. dëgg la dëgg la mais loolu mais mais khas ah, euh, Mbacke en ah, link bi la euh, je pense que dina ñew dinañ ko indi. non non dafa métti trop parce que fi ne xam naa antenne bi fi ko def dafa jege xaw ma nu mu demee mais day am paratisme bu bëree bëree. ah légui yow khas khas technicien nga légui non ba bambay ba jubal yalla xam dañ ko daan japp dama dal di ba bambay ba jubal japp ko. da ngeen di fay redevance xam nga sénégalais yi déglu rajo yi buñ doon def ku nekk ñaari téeméer kese weer wu ne ci rajo privé yi ñu am ndëgër lay ah ndax bu doon bu doon kanaal la yéen a ngi nii di fay distributeurs yi di xëcc ay fil seen kër yi di fay ay ak bool bi noonu lañ ko tuddee Touba bool bi. bool bi waaw bool ah, lu tax du ngeen fay RFM ak ñoom waa Sud FM mag euh, n'est-ce pas non non non am na réseau na. daggal leen ñu sax téeméeri dërëm ku ci ne benn auditeur bu ne weer wu dee téeméeri dërëm sax. ah waaye mais ñun moom ñu ngi fay xam xam nga ñun ngi fay ñun moom maa ngi lay gërëm nuyul mo ñoom madame euh, waa Le Bawol ak waaw ak waa RFM Mbacké waa Touba Mbacké yëpp sañu maa dugg tubaa ci ziyaaru xalifa bu tedd bi nag mu euh, Mountakha yàlla na fi yàgg loolu ca wér sama soppe sama xarit Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdoul Khadir Serigne Abdourahmane Serigne ko ku lim Dioum et cetera Serigne Bassirou euh, Mbacké Euh, et cetera et cetera ñu ngi gërëm ñëpp mbokk yi yàlla na jàmm yàgg ci yéen ak seen njaboot. justice la réclamé détenu si gindi gaale inoo laa leen di jaale naka xol yi maa ngi leen di siyaar di leen koli deux seize bar na ngeen ko xaar dina bëtt parloir sar couloir ubale ba chambre noire tey la vérité en face na maaj bi tëri tëri paas waa gëri gëri kaas fil firi clash avocat à publicité sur RFM. Experts de haut niveau autour des thèmes de la réintégration et de l'entrepreneuriat vert. La grande finale de la food à Coton le 22 novembre.